plateau di nuyu également son excellence monsieur le président de la république ak donc le ministre El Malick nga xam ne mooy suñu ministre de tutelle mais aussi à l' de l' des auto-écoles du Sénégal lañuy nuyu ñoom ñëpp incha allah dalal ak jàmm euh, Cheikh Abdou alors commencez par nous présenter l'amicale waaw l'amicale des des moniteurs euh, des des moniteurs et employés d'auto-école du Sénégal. Mhm. donc euh, amicale la boo xam ne ñi ngi ko euh, euh, sos vers comment dirais les années 2000. 2000 waaw. donc mu nekk mbootaay boo xam ne moo boot mbooleem auto-école yi nga xam ne ñoo nekk ñoo nekk Sénégal. Mhm. voilà donc amicale boobu day dox ci donc dafa nekk loo xam ne à vocation. c'est un peu donc patronal mais également day défendre lépp loo xam ne donc mooy euh, intérêt donc les auto-écoles et aussi donc la formation donc en conduite automobile et en sécurité routière mmh. voilà mm-hmm. loolu mooy euh, vocation donc de ces cette amicale la. d'accord dinañ ci ñëwaat maintenant bu ñu ñëwee un peu ci secteur bi yan yan yan problème wala boog yan jafe-jafe ngeen di jànkuwante ci ci secteur bi. waaw ñun de wax dëgg yàlla bu ñu bëggee diagnostiquer donc problème yi nga xam ne moom la ñuy jànkuwante ci bi. dina nekk yu euh, bëree bëri parce que tey euh, euh, rien que rek la population ñoom jàngat bi ñu xam ci auto école ak li nga xam ne moo nekk dafa xaw a wuute. Mhm. da ngay wax ak nit ñi des fois ils te disent que ne waaw man auto école moom a jox permis alors que l'auto école donc institut de formation la boo xam ne da nga fay ñëw mu travailler say aptitude pour que nga mën yore un engin dugg ak moom ci kaw tël bi mën koo dawal en toute sécurité. Mhm. donc loolu mooy li nga xam ne mooy auto-école. da lay jàngal bu la jàngalee maintenant c'est l'État qui a examen de permis de conduire. Mhm. État mooy mooy mooy mooy jël donc le candidat passé la le permis de conduire à partir de programme bi nga xam ne moom la la auto-école bi formé mais l'auto-école la c'est à vocation tout juste de former donc le candidat pour qu'il puisse se présenter à l'examen. Ok. Kéjo ba léegi jafe-jafe yi. jafe-jafe yi def na. Euh, il est pas revenu sur ça mais en fait mën nañu ci dugg de manière assez euh, précise c'est-à-dire euh, mu ngi wax auto-école euh, wax na léegi ci concours bi mais gis nañu aussi ñoo xam dañuy jaar concours dañ dañuy def auto-école. Mm-hmm. bu examen jotee dafa am looy dugal. pour nga mën a jàll cest diir dire corruption bi bëgg naa aussi mu mu ñëw ci nan lañ ko nekk di dund dundee est-ce que am am na lu ñuy def pour xeex ko parce que aussi des membres des auto-écoles aussi ils sont <laughs> ils sont dans dans les cas de corruption aussi yoo xam ne euh, finalité bi mooy accident yi ngay gis parce que des gens qui n'ont pas suffisamment de maîtrise ci li nga xam ne moom mooy volant bi ak yenn jafe-jafe yu mel noonu manque de qualification bi avant que ngay dem jël volants yi loolu yëpp ban rôle wala boog ban responsabilité moom lañ ci mën a situer mhm. ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, waa auto école yi bon man de foofu su ma dee xool euh, responsabilité bi nga xam ne moom lañuy mën a situer donc auto école je dirais que l'auto école comme jules l'ai dit tout à l'heure donc c'est à vocation de former le candidat ñun li nga xam ne mooy suñu liggéey mooy réceptionner le candidat jël ko jàngal ko mu am les aptitudes mën a dem passer le permis de conduire. mais li Kajo wax aussi lu am la lu existé la donc loolu. war ngeen ci war ngeen taxaw xeex ko muy passer permis de conduire foofa état moo fa teg ndaw ndawam loo xam ne moom mooy xool les aptitudes passer ko épreuve yi nga xam ne su gisee ne le candidat est mu bàyyi ko mu mu jàll. léegi nag li nga xam ne moom lay wax c'est quelque chose boo xam ne ni ñu koy déggee ni ngeen koy déggee noonu lañ koy déggee te dafa nekk loo xam ne c'est dans les corps donc. corps de métier yëpp daanaka dafa am fépp foo xam ne am nañu jub am na ñeneen ñuy raas déem voilà hmm. mais man li ma mën a wax mooy corporation bi nga xam ne moom laa bokk ak entreprise bi nga xam ne moom laa jiite ah man de xam naa ne maa ngi jéem a def sama kéemtalaay kàttan sama liggéey ma di ko teg ci ci yoon waaw mais nag ñun ñëpp Sénégal la ñu dëkk ñun ñëpp ñoo ngi dégg dañuy passé ay consommateurs lañu suñu njaboot ay consommateurs la am na loo xam ne man duma ko dindi du ma ne amul bon recrudescence accident yi ñi ñuy gis ban ban lecture nga ci am. recrudescence accident yi. Mm-hmm. boo xam nga accident dafa nekk mbir mbir boo xam ne causes yi dafay nekk ay causes yu diverses causes yu bari da ci da ci da ciy am. ma relancer la rek pour pour pour gën a précis peut-être parce que surtout ñaari ñaari cas yu mujj yi mu impliqué ay ay chauffeur de bus euh, dawal à vive allure la ñuy wax nga dem ba benn moment nga làmb jotoo dara nga continuer dem yenn nit c'est-à-dire il y la responsabilité du chauffeur qui est engagé parce que moom moo censé vérifier ndax ay frein am baax na wala dara moom moo censé aussi dawal normalement ba nga xam ne fi nga warul a dawal allure nga bañ fa dawal allure chauffeur yooyu ci je dirais normalement ci auto école la ñu war a jaar ñu jàngal ñu looloo tax ma ne ban appréciation moom nga am par rapport ak accident yooyu ak euh, responsabilité ces chauffeurs la qui sont censés euh, être mhm. avoir été formés dans des écoles de xam nga accident accident li ci gën a bëri ci bettel lay am mais léeg-léeg doomu aadama mën nañu ci doon sabab ndaxte accident dafa am ñetti éléments yoo xam ne ñooy ñooy seq donc accident lu njëkk mooy limin nit ki ak véhicule am bi nga xam ne moom lay dawal mooy engin bi muy dawal ak aussi environnement bi ñett yi yëpp mën nañu nekk donc facteur d'accident mais ànd ak lii yëpp ñëpp d'accord nañ ne ci statistiques yoo xam ne ñëpp d'accord nañ ci mooy mën nañu wax ne quatre-vingt-dix pour cent des accidents ci nit lay ci nit lay jóge l'humain donc est, est, est responsable pour ne pas dire cent pour cent parce que c'est l'humain même nit ki si boppam mooy am donc euh, euh comment dirais-je euh, euh responsabilité ci engin bi nga xam ne moom lay dawal. mooy également mën a adapté wu ci environnement bi nga xam ne moom lay dawal ba tax na bu ñu xoolee en résumé dañ naan daanaka cent pour cent donc des accidents nit ñi ñoo koy. ñoo koy waral léegi nag face à ces accidents là. Euh, bon xam nga. man j'ai j'ai fait bon il y a on a quelque chose comme j'ai fait une enquête si affaire auto école yi quoi. Mm-hmm. Euh, boo j'étais allé un peu partout bon j'étais allé même à Thiès si affaire parce que amoon na benn polémique bu fa bu fa juddu comme quoi que y avait des gens yoo xam dañu doon def ay kii auto école di arnaquer nit yi euh, et puis il y a beaucoup de de ci loolu dafa waree aussi tamit da ngay gis euh, auto yoo xamante ne dañuy employé ay nit man su loolu laa gisoon loolu laa découvriroon Euh, amul responsable boo xamante ni dafay ñëw euh, ngir ngir ngir xool ba pare aussi dama leen gis ñoo xam dañuy passé dañuy essayer di lay passé loo permis pois lou si oto bu léger xam nga te alors que normalement ça doit pas se ça doit pas se passer comme ça euh, ba pare aussi da ngay gis ay auto école yoo xamante ne existé wuñu presque affaire boobu. de nom rek dañuy exister voilà exister wu ñu dañuy dañuy dañuy accueillir rabattre ay clients yu bëre di leen dawaloo di leen dawaloo jour bi nga xamante ni war nañu passer examen ñu dem si auto école boo xamante ni c'est reconnu après ñu jox ko benn commission. Mhm. Euh, voilà pour un peu liggéey ak ax moom mais yéen ñi nga xamante ne boobu vous êtes euh, vous êtes reconnu euh, mais nan pourquoi. liggéeyoo leen si loolu ba ba loolu ba ba ba ba ba mu deñ voilà ba pourquoi liggéeyoo leen si loolu ba mu deñ parce que yaana yaana yaana en pagaille man comme lu ma lay wax ni j'ai travaillé sur ça mais bon yaana yaana avait beaucoup beaucoup beaucoup fii à Dakar comme waaw donc li nga wax noonu phénomène la boo xam ne bu am la maanaam auto école tey ubbi nañ ko mu doon un fourre boo xam ne fu waay jóge ñëw taxaw ne auto école laa te du auto école. Mhm. bëri na ñoo gis tey. ñu yore oto ñu def ci insigne auto école ñu nekk ci kaw tër bi di jàngale te duñu ay ay auto école mm-hmm. ay samba booy la ñoo xam dañoo toog rek dagg seen oto seen pédale daal di daal di commencé di di jàngale ñun nag ñi nga xam ne ñooy euh, la corporation donc des auto écoles du Sénégal on a fait plusieurs donc dénonciations mais nag foofu la suñu capacité yam parce que tey on ne peut pas se faire police nous-mêmes li ñu mën mooy wax état bi jaar alerté wane ne ñii kat ñi ngi ciy dugg te bokkuñu ci. mais est-ce que loolu yéen a koy def est-ce que yéen a ngi koy def bu donner un exemple fi nga xam ne foofu la ñuy passé permis de conduire muy au stade de l'amitié boo fa demoon moment session permis de conduire da ngay gis ñeneen ñoo xam ne ñi ngi taxaw dagg seeni i dagg seen i pédale teg seen oto dafa jàngale état di ko gis ñi nga xam ne ñooy agent wu ministère yi di ko gis ñi nga xam ne ñooy yore examen yi di ko gis. donc ba tey amul amul amul amul amul benn amul dara lu ñu ci def. donc ñun mënuñoo kojanteeg nit ñi di leen jàpp ak di leen dàqi. tout ce qu'on peut faire c'est de dénoncer et on a dénoncé à plusieurs à plusieurs reprises. Ouais. maintenant nag par rapport ak maa ngi dégg nga naan benn kaawu xaw ma auto école yoo xam ne wala ñoo xam dañ naan auto école lañu jël un client bu ñu ko jëlee ñëw. di la dañuy jël ay clients dañuy wax ñoom entreprise lañu. poids lourd di la di la passer le poids léger. moi je loolu daanaka c'est presque impossible. parce que tey. ah bon am ne moom mooy toog nga jël oto bi nga. xam ne mais su fekkee oto oto su fekkee légalul nu muy. de l'état kenn du fa nekk waa ji nga xamante ni moom moom mooy gérer affaire moom moo fay nekk ak client yi kase ñoom ñoo fay nekk mënul am agent de l'état ah, xam nga lu légalul moom man man lu légalul kay laay wax loo xamante ne am na ñoo xamante ne sax Aïcha mhm. man lu ma lay wax ni sëñ bi man maa ngi gis am ñoo xamante ne sax dañoo ñëw ak seen permis mhm. ne nañu jàng dawal te am nañ permis loolu mën nekk man loolu gis naa ko itam. loolu mënul nekk. Mhm. d'habitude d'habitude gars yi balaa ñuy dem auto école sax dañuy am per balaa ñuy école sax dañuy am permis. permis ba pare xam nga loolu c'est pas cohérent donc euh, xam nga auto sax dafa am dafa am dafa am day def formation au permis de conduire mais day def perfectionnement bu pouvez avoir mhm. mais man mënu ma man mënu ma comprendre koo xamante ni dafa am permis ah te mënoo dawal am permis te mënoo dawal permis moom balaa ñu la koy jox foog nga mën a dawal ba pare mais mënoo dawal ba pare am permis loolu mënoo nekk mu def les chariots avant les bœufs loolu mënul nekk. xam nga Aïcha yow jàngoo li ngay def nii. man Pape non je je parle même pas de ça. moom laa kajoor kuy def. cest à boo gisee ci oto bi ñu bind si arrière bi euh, am na lu ñuy bind débutant. débutant débutant mais loolu c'est possible par exemple koo xamante ne. débutant la mais koo xamante ne musul toog si volant musul téye volant euh, euh, euh, oto. Mhm. ba pare am permis. Mhm. loolu c'est pas normal loolu laa wax. ça c'est vrai loolu défendre. ça aussi c'est loolu moom kenn du ko défendre. Mhm. loolu moom warta am. di ñëw di jàng daw. mënta am mënta am li ma xam daal mooy ñooñu fa ñu jaar ba am permis ñoom ñoo ko xam. waaw mais normalement nit koo xam ne. amoo aptitude mais mais yéen est-ce nekkul seen. conduite foofu rek laa koo xamante ne dafa yor dafa yor permis. di ñëw mu ne dafay jàng daw boo ngeen def enquête et tout ba jéem a su fa bu fekkee ay services de l'État ñoom ñoo ko def ngeen débusqué loolu par exemple. j'ai pas koo xamante ni dafa ñëw ne dem dafay ñëw si auto école mu ne dafay jàng dawal. mais gis ngeen ni yor na permis de mais ngeen topp circuit bi ba xam nan la def ba am permis bu ko defee ngeen dénoncé ko pour yooyu mu dakk ah non ñun loolu du sunu du suñu ressort. ah mais bien du suñu parce que dès l'instant que nit yore son permis xam ne mënut a dawal mu ñëw taxawee nañ ko jàngal man sa man sama yoon du dugg ci permis parce que je ne délivre pas le permis c'est l'état délivre le permis man loolu du ci kii. li may seet mooy c'est de lui donner une bonne formation. de sorte à que moom mu mën a mu mën a. d'accord Amadou Amadou li may ñëwaat mooy un ci examen bi nga xam ne moom la moom la ñuy def parce que je pense que Pape Pape Malick xaw na ko touché tuuti c'est-à-dire nit ñi ñu ngi li nga xam ne. wala bi ñuy dawal sax mënuñu dawal wala dañuy am permis mais mënuñu mënuñu dawal donc loolu daf may daf may interpeller ci li nga xam ne moom mooy examen bi nga xam ne moom la ñuy def mooy examen examen pour permis bi nga xam ne créneau rek ngay nga ngay def dugal li nga xam ne moom mooy moom mooy oto bi <laughs> donc si temps nit ki mën na ko mën ñëw def alors que amul benn capacité pour mën a pour mën a dawal donc loolu daf may daf may interpeller sur est-ce que waruñu xoolaat li nga xam ne moom mooy examen permis de conduire bi fii ci Sénégal parce que sànq yaa ngi koy wax c'est-à-dire tey jii bu ñu jëlee les accidents 90 pour cent des accidents boo jël responsabilité c'est l'humain alors que permis de conduire bi nga xam ne moom la ñuy def fii ci Sénégal je trouve que c'est vraiment basique basique c'est facile c'est-à-dire ku mënul daawal sax mën nañoo def créneau dugal dugal dugal oto boobu noonu tey est-ce que waruñu corser li nga xam ne moom mooy mm-hmm. examen bi de telle sorte vraiment tey jii balaa ñu laa jox permis dinañ xam ne la a les aptitudes xam na exactement lan mooy code de la route lan mooy dawal lan mooy créneau lan mooy leneen ak leneen leneen ak leneen balaa ñu lay jox permis mais tout simplement ñëw def créneau ñu ne apte nga jox la kayit bi même bu fekkee ne tamit je comprends ne am na ñaari partie examen bi c'est deux parties moom dañoo def euh, am na écrit bi am na aussi am na aussi pratique bi mais je pense que ne c'est trop facile ñi nga xam ne moom la ñuy joxee permis yi fii s est-ce que waruñu xoolaat li nga xam ne mooy xam nga ñun li nga xam ne mooy suñu souci mooy jàngale Sénégal. Mhm. à ce que ñu mën dawal. mais mokkal nag dafa nekkat beneen niveau nit ki c'est un forgeron qui devient forgeron tey auto école tey mën na laa jàngal bu la jàngalee ngay door a génn mën nga génn ak ay carasse yu ndaw mais il suffit nga dox au bout d'un mois da ngay daal di am. la perfection la mhm. main mën a dem. te aussi man j'aimerais bien que aussi ñuy xool les auto écoles d'un œil un peu plus parce que tey boo xoolee dans la population nga xool les femmes pratiquement ñoom ñëpp ci auto école la ñuy la ñuy jaar ak ma voiture ñu naan les ma voiture ñu ci bëri ci auto école la ñuy jaar. Mm-hmm. rare nga leen di gis ñu impliqué ci accident. ce qui veut dire que ne formation bi nga xam ne moom la auto école yi di délivrer formation la yoo xam ne ñu ngi am njariñ simplement nag nit ki tey soo xoolee accident yi nga xam ne ñooy am nekkul ñoo xam ne ay apprenants lañu fekk du ñuy jàng ñooy def accident. mais des gens qui ont conduit après un certain nombre d'années wala am ay catégorie permis yu bari ñoom ñooy impliqué ci accident yi ñoo xam ne koo xam ne tey day def transport en kooku jaar na le poids léger am le poids lourd door am le transport en commun su jaaree yoon kooku donc war naa nekk koo xam ne dafa mën a dawal su amee accident su defee accident peut-être indiscipline nag yeneen facteur moo ci moo ci. mais lu tax ma lay laaj aussi mais du tey jii demee ci. yi nga xam ne duma duma cité no donc day pays yu gën a permis pour am ko c'est très très très très difficile pour nga am ko tey ji fii Sénégal mën nga tëdd sax sa kër am permis donc cest à moo tax ma laaj c'est-à-dire qualité examen bi nga xam ne moom la ñuy def loolu Sénégalais fii Sénégal est-ce que ko xool parce que am permis c'est facile cest à fekkee da nga jaar ci auto-école wala jaaroo ci auto-école tu peux te bon matin avoir non ah, xam nga bon qualité qualité d' examen bi. surtout qualité d' examen bi créneau def dugal. ñu créneau bu du créneau kese de créneau c' une très grande maîtrise parce que boo mënee dugal oto. ci diggante ñaari oto yu gaare. c' est parce que am nga maîtrise. da nga naan kañ da nga naan kañ yam ci créneau. jàng créneau kese. loolu ça ne suffit pas. Mm-hmm. dégg nga parce que euh, volet formation normalement nit ki dafa war a def initiation nga jàngal ko les manœuvres. def ak moom ligne droite dawal ko en circulation créneau bi dafa nekk phase boo xam ne daanaka phase terminale day fekk foofu moom mokkal na nga jàngal ko ay euh, marche arrière en ligne droite ay demi-tour sur la route créneau ay démarrage en côte yooyu dafa nekk manœuvre yoo xam ne donc manœuvre yoo xam ne nit ki bala mu ci agsi day fekk ne am na une certaine maîtrise donc du véhicule c'est vrai que nag su nekkee da ngaa jaar ci auto-école boo xam ne auto yoon la dana la toppal état bu formation yooyu ba mu mat sëkk. soo yàkkamtiwul waaw da jaar yoon mu jàngal la teg la ci yoon. Mhm. mais nag bu nekkee yow da ngaa ñëw dem jaari feneen parce que aussi. Mhm. ne croyez pas que ñuy passé permis ñëpp oto école lañ jaar déedéet y a un examen particulier qui est parallèle et cet examen particulier tey li muy jàllale ci ay nit auto école sax amuñu loolu y a des examens yoo xam ne ñu ngi am chaque mois donc da ngay gis transporteurs yi ak yooyu foofu la ñuy yóbbu ñi nga seen apprentis yi. examen yi ñoom ñoo koy créé hmm, ñoom ñoo koy organisé état mooy organiser examen hmm. état du Sénégal mooy organiser examen am ay examinateurs yoo xam ne ñoo ñëw sur place xoolal état ndax kii am na aptitude wala man pour man li ñu def nii examen foofu nekkul problème bi foofu nekkul problème bi parce que nit ki bu xasee ba dugg ci oto rek boo ko joxee mën a bu manœuvre rek xam nga ndax mën na dawal wala mënta euh, mais je je pense le problème mooy nit ñi. ñoo dul dem vers les auto-écoles def une formation complète. Mhm. léegi nit ñi tout le temps ñoo jaar ci ginnaaw di ut ay facilité wala euh, jaar particulier ñu dugal leen seen dossier. nga si ay cas yoo xamante ne am na ñuy ñëw dafa yomb parce que dafa yomb ay cas man du ma ko def. ma ko def parce que. sama kañ ndax am na ay cas yoo xamante ne gis nga ko quoi yoo xamante ne yow dund nga ko. yoo xam am na ñoo xam ñoo lañ di jéem ah, man gis naa ko parce que ñun. chaque examen particulier comme état amul ay oto suñuy oto lay loué. ok ñun la ñuy loué bu ñu ñëwee déjà rek pour vous dire que ne examen boobu y' a a pas de sérieux mhm. su dee ñun suñuy candidat ñooy passé suñuy oto ñun dañuy wàcc bàyyi leen suñuy oto ñu dawal dugal ko mais si c'est le candidat particulier obligé nga toog ci biir ak moom parce que da nga léeg-léeg dugg sax nit ñëw taxaw na la ndax pédale bii mooy lan. alors yaay na ko wàcce Kajoor balaa may ñëw si yow c'est-à-dire man fu may gën a appuyer rek mooy le manque de sérieux nga xamante ni am na te Amadou noté ko ci côté examen yi sànq ba léegi ñuy wax conduite mais dafa am beneen examen muy code code bi aussi li nit ñii di jooy c'est-à-dire liy xew ci biir mënee suñu ko wax si plateau bi mais ñi nga xamante ni jàll nañu wala am nañu permis xam nañ li may wax même ci code bi il se passe des choses yi nga xamante ni c'est inacceptable c'est-à-dire aujourd'hui Sénégal pour nga am fi permis dafa yomb donc yooyu noonu yëpp war nañ ko xoolaat code bi déjà accident de la route yu bëri yuy am loolu la c'est parce que les gens ne respectent pas le code de la route loolu problème la ah yomboon na ci yow ah oui moi j'avais 19 je suis désolé j'avais may def code ah, je suis je suis désolé ah Sénégal ni ñuy condition la yoo xam ne boo ci passé permis normal laa wax donc vraiment di nga am les aptitudes. ba ñu ma ko moo parce que dinañ la jox dinañ la jox vingt cinq questions yoo xam ne tu droit qu'à sept fautes et ces questions là gis question yoo xam ne da nga gis benn question bu ànd ak ay sous catégorie. qui c'est am la yoo xam ne da répondre plusieurs. question mais nag théorie mais on doit ak pratique des fois dafay am différence. léegi nag mën nga mën nga jàng théorie. léegi nag bu ñuy wax manque de sérieux bu bien bu bu ñuy kii. ñu may may développer tuuti amul baax amul wax. manque de sérieux bu ñu ko mënee wax ci côté code de la route dañu naan tey suñu xoolee les candidats qui passent à l'écrit nga xam ne ñoom jàng nañu français. bu ñu ñëwee soo xoolee dama naan daanaka soixante dix pour cent yi dañuy jàll. s'ils sont formés a donc a l'auto-école. mais ñi nga xam ne ñoo jàll a l'oral même ñun les auto-écoles on victime de ça. <laughs> da jël sa élève nga formé ko ni nga formé ki nga xam ne moo jàng écrit écrit nga ñëw à l'écrit tu as 80 pour cent de réussite nga ñëw à l'oral tu as un wala cinq pour cent de réussite moom alors qu'ils ont été formés de la même de la même façon foofu la foofu la problème bi nekk en fait une question mais pour donc pour rebondir juste balaa may dem ci question bi mooy tout à l'heure lu Pape Malick di c'est quand même intriguant euh, ku ku ñëw ak ak permis te mënul dawal mais en fait man je pense que kooku ngay gis ak permis am c'est-à-dire c'est plutôt des perfectionnements qu'il va faire mais je ne pense pas que au Sénégal mën nga am permis te quand même man naa koo xamante toog ci oto am na permis musul toog ci oto ah, loolu moom <laughs> comme grave mais non loolu maintenant man man ma question est de parce que lu bëri li ñuy wax ni mhm. c'est pas auto école moo koy gérer mais tey auto auto école moo fi nekk te dañu nekk ci stade boo xam ne il faut que ñu ñu ñu defaraat secteur du transport la question est de savoir yéen déjà que vous vous êtes constitué en en en en une association boo xam ne ça dafay maye territoire bi yëpp euh, seen rapport lan la par rapport ak l'État. Mhm. par rapport ak toutes les structures yoo xam ne euh, il doit y avoir des représentants de tous les acteurs de de du transport ndax yéen yéen a ngi teew ci instance yooyu noonu. seen seen réflexion ndax mu ngi yegg ci état parce que quand même je pense que vous seulement par une association buy toog di ki vous avez émis des réflexions yoo yu ñu documenté euh, fan la mujj ak yooyu je je voudrais savoir. yan ñu jeexal ci loolu ah. allez-y rapide question bu ma bu am bu am solo la. bu ma sawar également ci euh, wax ci. ndaxte dès lors que le président bi mu toogee rek première conseil des ministres bokk na ci li nga xam ne. teg na ko ci feuille de route le le premier ministre mooy mu jéema xool à ce que ñu jéem a taxaw ci la sécurité routière au au Sénégal vraiment le le PM également gis na les acteurs yi nga xam ne ñoo fi nekk wax ak ñoom également pour ñu mën a toog solutionner donc li nga xam ne mooy problème mu accident yeeg problème mu li nga xam ne ñoo ñooy grandir autour tout autour de ça. Mm-hmm. mais nag euh, wax dëgg yàlla bu ñu xoolee ils ont la police. la gendarmerie est conviée les, les transporteurs et d'autres entités mais toujours l'État day oublier volet formation alors que tey fi mu toll nii sécurité routière socle bi mooy formation mhm. une bonne formation su nekkee nit ki am na ko rek am na des notions de base solide en sécurité routière te loolu mooy l'utilité des auto-écoles auto-école état moo leen agréé bi mu leen agréé ñu jaar fi ñu war a jaar ubbi seeni seeni seeni seeni seeni institut di fa jàngale donc formation bi mais tey état ni nga xam ne moom la leen war a noonu la war a ba tey gestuwu leen ko. Hmm. parce que instance yu bari donc euh, danañ jël ay décisions ñun duñ ko duñ ko. jël ko fekkee. si si je refonte code de la route yi nga xam ne am na fi yëpp. ils ont convié les transporteurs convié ñeneen ñi mais ñun ñi nga xam ne ñoo ñoo séddoo wàllu formation boolewuñ ñu ci moo tax à chaque fois suñu seetee dañuy dañuy def benn code de route bu ñu toogaatee tuuti ñu changé waat ko. code de la route laaloon nañ ko fi en 2002 ñu toogaat en 2000 en 2009 am na luñ ci luñ ci jota ñu jota laal defaat nañ fi encore en 2022 2022 boobu jàll na à l'Assemblée nationale ñu voté ko mais ba tey mi ngi ci tiroiru kii bi on attend que le président mu mën koo promulguer te ci biir loolu auto-école obligatoire lañ ci lañ ci def mhm. donc tout candidat boo xam ne day passé permis dafa war a jaar obligatoirement aux auto-écoles dina am les moyen de contrôler les auto-écoles ba nga xam ne. Mhm. la population sera formée à bien. merci beaucoup merci merci beaucoup. temps bi temps bi jeex na Pape tu vas devoir m'excuser mm. merci beaucoup ab Cheikh Abdou Khadre ñu lay jaajëfal ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi ah. kon donc euh, ah, maa ngi nuyu donc sunu euh, président euh, corporation muy Alioune Badara Daffé mi nga xam ne moom laa fi teewal moo fa waroon toog. Mhm. mais mën naa ko fi mën naa ko fi teewal. di wax ne vraiment euh, j'ai été ravi ñëw ci euh, plateau bi ngeen may ma occasion mhm. mu mën a. mu mën a wax ci li nga xam ne mooy suñu secteur. mais simplement nag xam naa ne euh, débat bi ni mu demee la. Mhm. mais amoon nañ ay bagages yu bari yu ñu andi woon yoo xam ne waroon nañ cee mën a mën a waroon cee mën a débattre. beneen yoon mhm. incha ay jafe-jafe mhm. parce que si jafe-jafe lañu laaj waxoo jafe <laughs> lan la waroon doon. Ah, xam nga jafe yi su bari on a insisté. ci jafe-jafe yi di metti daanaka boo mënee jafe-jafe. daanaka fu ma laal jafe-jafe. merci beaucoup jaajëfal nañ la alors dañuy ànd ak la régie léegi léegi ñu ngi ànd ak Amadou bu ko defee ñu wéyal suñu aventure matinale.